naanay dugg yaa lu mos a jeex gub a a a a gub. champion ma may wax nii ci Sénégal waaw Aliou Cissé ñu ngi koy teg boo xamante ne nii nekkul ci moom quoi waaw jooy na ba sonn ndam rek waaw Sénégal jëm si kanam. Sénégal jëm si ma la seen tool yow seen càkkari nii def. Ah, waa gis nga xool kaw daal. bi naka la. waaw Ndeye Fatou Ba. ñoo ah, ko gisee tey Sénégal tey jii seen drapeau Sénégal fekk jour bi foofu mu ngi ci dem moom koy fekk Sénégal tey ñëpp génn dinaa leen waxoon Dakar kese mais foo jëm ci àddina bi tey jii nii képp koo xam ne Sénégal moom Sénégal yëpp dañu koy jeew donc mu doon moo xam ne moom exceptionnel la c'est grave c'est Sénégal. c'est Sénégal kii gagne ah. Sénégal kii gagne. waaw kontaan nañ trop ci victoire bi. jaajëf li ngeen xamul man maa ngi daw rek mais xamu fu ma jëm. foo jëm foo mooy Sénégal. te xam nga Sénégal moo ñu xam. mais Sénégal. nañ étoile gaye. bu dee étoile bi. waaw yow confiance kese. dama xamoon dañ koy gagné. maa njëkk def étoile sama morom si Sénégal. jaajëf yow Abdou Diallo Abdou Diallo Famara Abdou Diallo Abdou Diallo ndaanaan la mooy barke Sëñ Tuubaa waaw jaaraama Aliou ndax dañoo fekk foo ne mu yóbbu ñu fu sori ndax sénégalais yi doon wax man Aliou Cissé dara noonu dañoo dof ndax ku la nga ngay souffrir mu yóbbu la jëlee la coupe de coupe d'Afrique yóbbu la demi nga jël mu yóbbu wala coupe du monde ñu jël si mu yóbbu ñu coupe nga ñëw ba mu yóbbuwaat la final. gàcce nga la ama Aliou nga la ama Aliou Cissé waaye di remercier tamit ak toute l' équipe toute l' équipe ñu leen di remercier bu yaram ngi daw billaay sama yaram ngi daw xool nañ suuf bi yëpp benn zone bi da ngay gis xam ne Sénégal bu mu toll nii ñoo bokk ndey ñoo bokk ko fédération waxee buñ manqué woon manqué wu si tamit kenn yéenewul su kon kon sa borom moo tax dañu dem yàlla ma ñu lii musuñ gis lii suñu àdduna peut-être am na yoo wax naa ma 2002 lii xamoon na amoon na waaye gëm naa ñu suñu genre yi ñoo xam ne fàttaliwuñ 2002 tey jii nii léegi ñoo koy doxal dund Sénégal donc mu doon loo xam ne exceptionnel la on a tant rêvé mais maintenant aujourd'hui on l'a fait génération ñoom Sadio Mané. waaleykum salaam mais c'est tax wax nga ni tey looy yëg tey xanaa gisaloo ma dama kontaan du ma bëgg ñun da nga la di yàgg indi ndam ci biir réew ak jàmm lépp ci jàmm la démb dañoo ñaana ñaana ñaana ñaana ñaana ñaana ba yàlla nangu ñu jërëjëf yàlla suñu borom bi sama bëgg dalaa ngi nii nag Mm-hmm. que Lions yi bu ñu ñëwee di am fu ñu jaar c'est ça mon problème c'est ça mon problème mbooloo mi yëpp gën di naan ndax teg ñun ñun daal di tegal Lions yi parce que bëccëg bu ñu am si ñoom c'est exceptionnel c'est le jeu bi gis ça. donc c'est ambiance bi. ambiance bi kontaan rek ak mbégte rek. ak mbégte kontaan bi wér-wér. c'est la première fois ñuy am étoile moo tax ñu kontaan quoi. et on a gën a gis ça léegi. ah. ñu ngi woon ñu ngi doon ñu ngi woon ñu ngi doon bëggoon na koy bay samay doom. billaay wallaay dafa neex de mais jar na ko. ndax jar na ko moo tax mu ñibbi si fii nii seetaane ko. billaay waay yow si doyen bu mag nga yow ndax si bopp yaa ngi sa jaamu yaa ngi. jaajëf. ah ah ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mais li nga xam ne équipement. fay wóor na yàlla kontaan nañu ba si kanamu yàlla. coupe bi ñëw na Sénégal. waaw gis nga de Baye soo ay kontaan rek ñëpp génn wóor na yàlla li leen doon ay at a ñuy daw kontaan nañ torop bi laa walaay Sénégal ca kaw rek. on est champion on est champion on teel ko xala ngay wala na ko am na seen mais tey jii mënoo gis mënoo xamoo foo jëm dangay doon dem rek c'est ça mon souci quoi xamoo foo jëm on sait on sait même pas où on est voilà defal ko ko jël loo waxee ana caméra bi ah ban dara la waxal waxal waaye du waal am na ñetti waal ko yoroon. waaw am naa ci sa tool yi na vingt trois cent rek fekk na ko judd. maa ngi supporté ba léegi di kontaan rek mais mooy damay ñaan rek sama sët bu ndaw bi sax fekk na ko doon ñaan. amul loole. na police am na bu ñu leen teeree effectif bi 走，走，走，走，走。 kontaan nañ trop képp képp kuy Sénégal ak kontaan nañ. bilaay. gisuñu gisuñu wàccal ñu lii. Sali. chef. wàccal. merci. maa ngi nii xool ma. borom kër gi yàlla nañu leen di ci kaw. nag ñun ay doomu Sénégal lañ. lii dañ ko mérito. yaa ngi dégg di wax ne xoolal Pape Bouba Diop yaa moom lii nag. yaa ko moom waaw douzième Gaïndé moo moom lii waaw sëriñ bi yàlla ay doon jaay booy yéen waaw kontaan kontaan ba mu ñaan yàlla mu ñëw te yàlla may nañu ko ko wax dañ doon sant yàlla te Sénégal itam nañ bàyyi benn mbir nañ bàyyi critique bu bëri donte loolu sport la bokk mais nit ki Aliou Cissé dafa bëggoon tudd yow comme ni mu ko bëggee kon des fois am na yoo xam ne waxuñu ñaay même même bu koy dégg sax moom mën na ko déggoo sant rek waa mais tamit ñaay dinañ bëggoon dañ ko ñaax tamit tudd ñëw nañ gën a sant yàlla rek di nekk seen kanam bu tudd moom yàlla dafa ñu sutura moom ñu ndam kawe ñu def incha allah rabbi waaw incha allah loolu lañ bëgg parce que coupe du monde football la rek football dëgg kenn ñi koy ñi koy jël kon ñu te fii li fi am amul feneen fii am na Alaaji Maalik am na Serigne Touba am Baye Niass am Baye Laay am Baye am waa Boukounda kon fii ñun amul a am incha allah rabi. sant rek waaye waaye yéen si jàmm waaye sant yàlla bu baax rek alhamdulilah ah kontaan nañ lool macha allah neex na trop xol li leen doon ñaan yàlla yàlla may nañ ko alhamdulilah ñu sant yàlla baax nañu waajal coupe du monde yàlla may ñu ko ci kattanu yàlla may ma may ma ko may ma

kontaan rek li nga xam foo ko natt mu weesu na ko da nga kontaan rek bëgg yaa kese. jaajëf sa zone ba zone baax na. est-ce que merci beaucoup. zone baax na. zone baax na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. donc ça va. ah neex na dem neex. c'est cool non trop cool. non non c'est la première fois. Ah. oh oui c'est la première fois. bonjour. ça va bien. Ah, comment vous comment vous voyez la Je suis content c'est bien les gens s'amusent. On en fait, non Ben oui Nous savez sommes pas, les champ... Vous savez faire la fête au Sénégal. Ouais Nous sommes les champions d'Afrique maintenant. <laughs> Oui, c'est clair. Et c'est fait. Et c'est ah fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Ah. Mais, mais, mais, ça va Comme c'est la fête Voilà, comme c'est la fête Oui, oui, oui. Assalamu alaikum, je présente moi, c'est pas Miouniak. Sénégal, Sénégal, Sénégal. Bœuf. Sénégal, Sénégal. yëkkati la 100 francs caaf di ko yëy da ngay am fii da ngay gañe on est tous fiers des Sénégalais vraiment kontaan nañu. yaa ngi yàlla dimbali ci coupe bi ci ba 2023 incha allah ñu tàmbaliwaat ko mu nekk une deuxième saison. amiin incha allah félicité ñëpp di wax ne gars yi Algérie buñ ko jàppaatee buñ ko jàppaatee Algérie dañ koy dóor dem dugg coupe du monde jël coupe du monde bi xaar leen. rek Kapa sama deuxième gars yi. loolu deuxième am yow. waaw mais sant yàlla rek parce que dañoo doon ay jeunes yaa ngi ko toog di rêve am étoile suñu moyen démb yàlla dimbali ñu mu may ñu ndam kon dañ koy sant yàlla bu baax a baax. compétition bi yàggoon na métti woon na mais yàlla dimbali ñu sotti si ak victoire donc dañuy sant yàlla bu a a baax douzième gaynde la. douzième gaynde ni ak contentement yi nga dundee. mu mën ko dundee Sénégal mu mën ko dundee parce que mobilisé woon nañ presque quatre vingt quatre vingt deux personnes demoon nañ am na yeneen yoo xam ne demaatoon nañ quoi ay jël seen ay propres moyens fekk gars yi foofu noonu. donc loolu ah, satisfaction la pour douzième Sénégal ak douzième gaynde ñi nga xam ne ñoo nekk Cameroun yëpp doon poussé lions waaw. waaw. micro micro gisoon nañ ci loolu quoi vraiment vraiment. si côté bu métti yàgg lool. mais xoolal lépp yàlla loo quoi. kontaan lool nag vraiment vraiment vraiment kontaan lool vraiment. boo ko naatee rek kontaan nañ. lenn rek laa mën a wax mooy kontaan nañ l'histoire reviendra Sénégal bu jëlee dix fois coupe c'est une première l'histoire reviendra dañu kontaan dañuy dolli sax. Habib Diallo Habib Diallo. Habib Ismaïla Sarr la. Habib Diallo la Ismaïla Sarr. waaw sant ak kontaan. bilay walaay gën a samba damaa yóbbu dee. ah. donc seen mbooloo ñëpp tey jii génn teetu ndam moo neex ndam. bilay ndam mooy lépp. gis nga réew ndam li ko wax lii ci la bokk. xool nekk benn lépp day am incha allah. Sadio Mané Ismaïla Sarr wala Bamba Dieng. ñëpp. yow ak Bamba Dieng. Gana Gueye la Gana Gueye Amadou Baldé. Amadou Baldé. Amadou Diallo. Amadou Diallo. waaw yow Amadou Diallo dafa sonn moo tax nga bokk waxal loolu. waaw. yow kon xoolal football bi de. football bi xool naa ko kay tuuti rek. dem noonu noonu dundee match bi euh, pour man euh, Sénégal joué na. mais en fait euh, du Sadio Mané wala keneen yàlla moo ko nangu yàlla moo ne ni année bii tey dañoo koy gagné moo taxit ñu gagné ko. kii moo waane. moo waane. yow yàlla ñaata at moo wax gagné wu nga. ren ñu gagné ko nga naan. waaw yàlla la yàlla su dul woon yàlla tey duñ ko gagné. yàlla sama tax ma toog nga toog. waaw. Kobay doo gisee ambiance. waaw waaw neex rek nag sëñ bi wax neex. billaahi li ñu may baax ñu dañoo kontaan ba xamante ne ñaaw mooy loolu quoi billaahi wallaahi. yow comment nga joué yow. man man ah, Sadio Wade. yow Abidjan Abidjan du sa mag. mais. Ndiobo leen démb noonu dundee Massi. démb noonu dundee eh, maa ngi yokk ba sama baat bi dee. baat bi dee <laughs> waaw. Sadio Wade mu rafet plan bi jooyoo. jooy naa kay. waaw waaw. ñooñu Cheikh Kouyaté la daa ko ànd ak xar yàlla gën a yomb. Cheikh Kouyaté waaw. mais déedéet rek am na génn sax mère bu wóor bàyyi gars yi. non si Aliou Cissé dañuy ñëpp quoi moment boobu waroon nga génne parce que Cheikh Kouyaté moom mu ñëw mooy tamit. comparé à à à à du marqué Pape Gueye yaram Pape Gueye dafa te benn pied la Pape Gueye du marqué. équipe bu yoree bal lay foofu mais équipe bu yoree bal du fubal Cheikh Kouyaté waru ko woon génne xam nga man foofu je préfère mu génne Nampalys. waaw dëgg la non match bi démb jaar na yoon quoi kontaan nañ suñu génne bi naa yoo laay li ñu góor lañu defar quoi xam mooy benn étoile dañ dañ gën a mën quoi waaw ñëpp ñu juddoo ba tey balaa ñuy dund sax dañu dañ dañ mësuñu gis mësuñu gis coupe bi mais xanaa ren sa ànduñu ko sax waaw ñun moom sant yàlla ñun moom suñu xol moom dafa quoi ñun amuñu dara lu ñuy moom wóor na yàlla moo suñu xol ba seet bi bi bi ni ñu waxee ni sax war a xam ne suñu xel seen ñëwal fii seen. seen maa ngi fi ngay wax fee. kontaan nga rek. kontaan nga kontaan. kan mooy kan mooy sa joueur préféré. Sadio Mané xoolal xoolal micro bi. Sadio Mané waaw. Sadio moom xoolal micro bi. Sadio Mané moom mu dem mu dem match Sénégal bi. mais bébé comment tu vois. ban numéro la. comment tu vis l'ambiance. non non. télé de si daan les joueurs yow. man Sadio Mané. Sadio Mané yow tamit. Sadio Mané Sadio Mané. Sadio Mané yow tamit. tur bi nag. ok. comment tu joueur préféré. man joueur yëpp. joueur yëpp. waaw. dem sànq Massi. waaw seetaan naa ko. noo tuddee Massi. kontaan rek. lii métti dañ koy mérité moo tax. Sénégal daa mérité ndam bi. bilaay. dañoo kontaan ba mënuñoo man instant sama bois bi sax. waaw dama doon jooy woon démb. tax nga jooy. ah damaa kontaan rek sama xol moo kii rek seet. comment tu joué yow. man aw ma joué ñun ñëpp dama leen bëgg. mais comme Mbaye dama am doon bëgg. gànn gi. ba xale yëpp ba gànn gi leen bëgg yow xam naa gànn gi leen bëgg. non waaw Sadio Mané la sama joué. Sadio Mané rek. waaw yow démb lan la ñu dundee machine. ah démb moom damaa ciy tóor dama leen jaar. dernier bi bi seetaan moo ko. parce que su fekkee benn espoir man Sénégal bi la. alhamdulilah yàlla indi nañu kubbi tey. waaw. monsieur Ndao ma dugg na ko. seer naa la. yaa am jàmm. drapeau drapeau. mais loolu de bu dee machine bi. waaw machine bi alhamdulilah rabbil alamin rek ñu sant yàlla ñu sant suñu ñaari waajur kon affaire bi moom waaw daanaka métti na trop suñu mais at na at na at na moo demee noonu at na moom lépp loo gis moom bu métti moo gën muy yokku waaw wax dëgg yàlla waaw kubbi moom wax dëgg fa yàlla moom dëgg na c'est la première fois waaw heure nag moo gisoon nag. bu jot a yomb nga xam te wuñ ko trop mais daanaka ko tuddee woon moo tax xam dara bi armé di xaame ko bu mel mu feete ko nag am nañu 15 nag bu soobee yàlla merci beaucoup a fait. On, on, on le voulait depuis 60 ans. Ouais, depuis 60 ans, on l'a pas pris. On l'a fait. Enfin, Dieu nous a donné la coupe. xam nga lii mooy jàmm quoi xool ñëpp ànd bokk ndey bokk baay xam nga lii bëggee suñuy joueurs yi. kontaan nañ lool suñu joueurs yaa a. leen di leen ñaanal yàlla rek may leen jàmm gudd fan ak wér ndam li ñu féete ko ci jàmm ak ci salaam yàlla. kontaan nañ bilaa wala kontaan nañ ko war a ko bilaa. waaw man ma wax. wala ñun ay sénégalais lañ. waaw ay sénégalais lañ. ku ñu gis ne ay sénégalais. ñun Sénégal jaral nañu lu ne. bu jaroon ma dee mu gañe damay dee. bilaa walaay da jar nañu. Kër Masar lañ jógee bilaa. billaa walaay ñun léeg-léeg moo ñu dese ah na jël coupe du monde rek dañ ko yàgg a rêvé billaay wallaay Sénégal am benn étoile parce que ñun buñ ci dóoba léegi topp national bi xam nga fekkee lu nekk fekkee déception bu nekk mais yàlla moo ñu fay tey yàlla tey moo indi ko billaay wallaay mais nag c'est fii ba kan di ñëwaat 2023 c'est la fête gars yi incha allah kontaan nañ bëgg nañ Sénégal bëri ak lu mu toll nii Maria yàlla def bëri ak. waaw waaw daf koo jar nag. fu nga jógee maa ngi jógee ba Fass Pass benn Fass. benn Fass dox ba fii ba fii. taalibe Cheikh Tidiane la damaa ñaan. taalibe Cheikh Tidiane pire la damaa ñaan. weeru yàlla maa ngi bind salaatu fàtte di ñaan uniquement. ngir ñu dendam dafa da koo jar. moo tax ñëw il est temps alhamdulilah alhamdulilah. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw. waaw. Group of happy group of alhamdulillah rabbil alamin. merci on s'est vraiment métti na lool waaye dañu ànd ak gërëm rek xam ne yàlla suñu borom ku ko ànd rek wala yaa jëm na yaa jëm na lii ñu koy wax ndax xam yàgg ay ani ani ñu koy xaar suñu maam yi nekkoon na xam nañu ko jël comme ni vert ñun ñu yàgg ndam yàlla ñu jigee jig ndam yàlla ñu jig si bàcc alxuraan jëriñ yàlla yàgg jël trop bi fukk mbon bi yàlla ko jël jëlaat ko jëlaat ko jëlaat ay ay ay yoon yoon yoon bàcc alxuraan jëriñ dañuy sant yàlla waaw di gërëm peuple Sénégal di gërëm peuple bu baax a baax am na solo lii rek lañ doon xaar muy ndam yàlla defal ñu ko ñu am ko a baax di gërëm suñu gaynde yi suñu gaynde yi gërëm joxe nañu jusqu'à bout ñu gërëm di gërëm suñu gaynde bu baax Sankara moom moo yëg sa moom moo yëg sa sax nag am na solo am na solo si réew mi ndaxte yéen kenn yéen yéen di ba alcool bi nii kenn yéen yéen a gën sonn ñëpp amul seen pay quoi di ñaan seen borom di ñaan di di ñaan ndam yaa ci Sénégal ndam yaa ci Sénégal yàlla yàlla jàmm ci bëri taxawaay jëriñ. ah. non sonn ñu mosuñoo sonn mosuñoo sonn te tey lañ gën a baax tey lañ gën a bare laa xel bu dal ak contentement rek Fall. bilaay yow waa ji dégg métti métti xamoon nañu dañ koy jëli mënul mënul rëcc dañ ko noot téye salaat dañ ko téye noot ko caw koy xiin Abdou Diallo dañ ko fii barke renti mais wuy bi naka la dëkk bi yëpp lu ko booy bi waxee yaa ngi dégg dara yoo kontaan yaa ngi dégg Yii kafuñu ne coupe du monde lay ñëw incha allah pour Espagne di waa. Salah Salah Salah. li ma bëgg a wax Salah. Eh, te li ma bëgg a wax Salah li ma bëgg a wax Salah. Salah boo ñàkk ndey yéen ma de. Salah boo bon. Salah boo mën a yoone waat. Salah li ma ko bëggoon tuuti bañ naa ko bugg. waaye ñoom dañuy xam parce que yaa Rasulullah usine bi lañ leen fekk. jël leen lu diis teg leen lu métti. ñoom loolu ñoo defati nag bu ñu ñëwee fii dem naa gën a yóbbu. waaw kay. gañe nañ ko andi nañ ko. ñu ngi sant bu baax. léegi c'est deux matchs. yéen kontaan démb doxe Marissa ba Palais jóge Palais. doxal ba Marissa. parce que Seydina mu xam ne jóge foofu day dem dem dem dem fële. doxe ba nii. ba nii ñu ngi mas doxe ba nii. ah lii ah, fort na yàlla bu mu jeex. du jéem sa jeex. ah bu mu sa jeex waaye suñu xol yi féex na. 2023 ñu ngi lay beneen coupe. incha allah ñu lii neex na torop kontaan nañ kontaan ngeen <laughs> Douze am gaynde Douze am gaynde sant baay ci jàmm noo gisee dem match ah dem kontaan nañ trop moom mais xaw nañoo ci trop na ci naar yi ndax Salah moom dafa doon nit koo xam ne dafa dangereux si biir si mais heureusement Diallo Diallo sauvé nañu Koulibaly yi xam nga je vous félicite daal ci kanam alhamdulilah rabbil alamin sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax ñun ñëpp parti Maranda Sénégal ba mu nekk koo ci dégg ne moo gën a jël bi ñagas mbër Sadio Mané moom bi la fa kontaan xol bu sedd barki Seydina Mohamed yal na yàlla xeeb doole yéen joueurs yi jàppee leen ko nii rek Aliou Cissé merci beaucoup. merci beaucoup Aliou Cissé. daay leen seetaan du bii kontaan dafa yàgg mais dañuy sant yàlla yal na yàlla xeeb doole yi yal topp si waaw yal si yeneen topp. dañ ko doon xaar bu yàgg. di dooguñ si. parce que mënuñu koo xam ñu ñëw waaw yàlla moo ñu dañ koy sant yàlla rek. dinaa dafa neex de di ngeen fët. waaw waaw. Dido. non non c'est vrai non non. Dido. non non man damaa amoon confiance xam ne coupe bi ren fii lay ñëw. incha allah. koo mérité Sénégal yàlla na ko yàlla defal ndam loolu ci baale yi baale waa gis nga ko de kontaan rek kontaan lool lool lool lool lool. dem noonu dundee ambiance dem noonu dundee machine. tiitoon nañ nag lool tiitoon nañ bu baax a baax waale yàlla defar na nag kontaan nañ lool ndam li yàlla ñu jiit lay wax joori joori xanaa ñu gën a góorgóorlu rek ñu mën rek ndax xale yi sonn nañ ah Sadio Mané Sadio Mané lay wax ñëpp mais kontaan ah man ngay Aliou Mané ak Bamba Dieng ak Bamba Dieng waaw. kontaan rek savouré ko li dafa jot dafa jot dañoo sonn ça fait quelle année li ko ci di daw di daw rek 2022 ñëw indi ñu coupe bi waaw 2023 moo def 2024 ñu jëlaat coupe bi incha allah salaamaaleykum waaleykum salaam am na leneen laaj am na leneen laaj quoi. man war jël ma waaw pression ak bànneex. mais macha allah ñi. ah pression ak bànneex lañ ko dundee. mais macha nag. waaw mu commencé Aliou Cissé ba. waaw waaw boo paree waaw parce que vraiment Aliou Cissé ñu ngi quoi donc. nañ ko mais bon c' est c' est ce sont des cliniques positifs. kon nga ko jàppale ko macha allah. Sénégal. xanaa kontaan rek. kontaan. yaa ngi doon xaar ay at i at ñëw. waaw ñu ñëw dañuy fekk kontaan fu mu nekk nii midi ba tey ren fa añu ñu lekk ñu naaru ñu ndax kontaan rek instant yii ñu ngi bëgg a dem bële mënuñoo dugg mais dañuy. maa ngi lay ñaanal yàlla Sadio Mané yal na la yàlla taxawu yal na la sa liggéeyu ndey wàllu Aline Cissé yal na la sa coupe bi jik si barke allah ji Fallou Mbacké lii ngeen uti woon yal na doon ay kubi kubi kubi kubi kub kub te mu jóg leen ngeen mu loo ko ale teew teew mais sant yàlla bilaay lépp Aline Cissé mais gars xoolal li ma téye bilaay xoolal rek moom kese la kon donc tout par force. xam nga léegi kër yow. mais yàlla baax Aliou Cissé mais suñu borom bu ko fayee yàlla baax. Thank you. terrain day daw condition population bi. population bi wala ñu ngi nii wala nit ñi ñu ngi bëri. depuis deux heures. macha allah dix heures onze heures. waaw midi une heure. ñu toog fan la trois heures quatorze heures quinze heures dix sept heures. c'est ça le Sénégal dix neuf heures. c'est ça le Sénégal. c'est du réglementation seen. seen xoolal ma lii. j'adore mon pays. j'adore mon pays. j'ai les larmes aux yeux. et le Sénégal qui gagne. Sénégal. enfin c'est ça le Sénégal. nous avons tant rêvé. lii mooy dëkk Maam Bamba. maintenant dëkk Limaamu Laay. Bilaay dëkk Baye Niass. wallaay ak ñeneen ak ñeneen. ñeneen moo tax moo tax ñuy wax à chaque fois. Ah. Sénégal buñ bokkee tey. waaw ah. bokk baay. waaw ah. di dóorandoo. xàccandoo xàccandoo. luñ wut rek am. voici. wala moom la preuve. mais de bu su ko dund sa àddina. non mais c'est normal. c'est que 2002 mënuñu koo dund. 2002 amul souvenir. mais c'est normal. parce que ce couple là on rend hommage à Pape Bouba Diop. on rend hommage à Jules François Bocandé. à feu Bruno Metsu. ah waaw métti jàmm te jàmm moo nekk du kay de. ah waaw waaw waaw. am képp koo xam ne dugg na fi rek. mais xoolal ma ful bi. dama xool ma xel rek sama papa ko koy jaay. waaw waaw waaw. tey daal dama bëggoon Sénégal dund dal. macha allah. tey jii qualité bi mu sori sori sori. Je suis vraiment fier aujourd'hui Seydou Mendy. Karama Boulaye Diop. ma ne du ma fàtte Papa Bouba Diop. Karama El Hadj Ousseynou Diouf. El Hadj Ousseynou Diouf. Karama Fadiga. Henri Camara. Karama Aliou Cissé le grand coach. Lam Lamine Diatta. Karama Oumar Ndao. Aliou Cissé exactico. Karama Pape Malick. mais Malick mais Macky noonu la ko woowee exactico. Karama président Abdoulaye Wade. waa Cheikh Ndiaye Karama Macky Sall. Ousmane Sonko on est fiers tey ñu bokk ndey ñu bokk baay te amul homme politique amul dara te amul Balla Gaye wallaay amul Modou Lo amul Eumeu Sène tey c'est Sénégal kii gagne tey Sénégal kii gagne waaye xoolal population bi nii damay kontaan naa waay waaye waaye xoolal bi nii jaaraama ba gendarmerie jaaraama police waaye sama xol fay fes na sama xol fes na jeg Sénégal Let's go! komen. Onmogelijk. Gis nga que moom tamit mais bis bu ku nekk si mooy président de nation du Sénégal bi nga xam ne ko gis ne Senghor gàncax ga laa moom tamit xam ngeen ko dafa dem ba bàyyi suñu ay élection yi élection locale yi topp yooyu deux jours de campagne la def ndax Sénégal boo nekk si seen ay kàddoom ay coupe d'Afrique a may na ko local yi may coupe d'Afrique boobu dañ koy yaatu di fal ñu bëri waxoon tey coow lu bëri woon lool tey mu faluwaat daal di indi Coupe d'Afrique loo xam ne moom la ñaagoon di dee rek ndeysaan ñaagoon ko fa suñu maam yi ko soog awuñu ko suñu papa yi ko soog awuñu ko président Sadio Mané Koulibaly Edouard Mendy Ismaïla Sarr ñoom ñëpp dégg naa laa may yëg Gracias.